warti kaa bëgg naa leen doom yaay diya samb mbokkum yaay sabara saaja ku sa waay del nii sa loxo ay dafa gudd lonk met allah jub mook mën a yem dañu gudd lonku fi ñu foogeewul fa la ñuy lonkee andi dama ànd ci mu jël Jeune Afrique te bu ma mënoon woo waa Amérique si yeneen dinaa ko traay wax leen ñu ñëw interview ko si yeneen muy wax ma leen koy jottalil dinaa ko def nañu dimbale aji euh, Sonko def ko viole Sonko dafa nopp aji saar li senegale yi xamul Pastef xamuñu ko waa Pastef dañ doon dajale seen xaalis di sutenir euh, Ousmane Sonko xale yu bari seen yaakaar dafa tas xale yi ba léegi ñu ngi topp Sonko. élection locale yi firndeel la. oh ñu loolu kii la euh, seen boobu yeewi seen bopp du Pastef de yeewi seen bopp ndax <laughs> dañoo tënku ci benn place ay ñoom ay ñoom Malick Gakou <laughs> ay ñoom bi ay ñoom Sonko dañu takk seen bopp xamuñu fu ñu jëm ñu ne yeewi askan bi maa ne leen da ngeen di kàcc yeewi seen bopp. opposition prisonniers yi soo xoolee opposition bi ñu bëri jaar nañu kaso sàcc luubal. Euh, Sonko Sonko jaaragul kaso. yóbbu nañ ko garde à di dugg na di. garde à vue. is a jail. is dama ko taxawal 100 pour cent parce que waxuma xale bu mu doon sama doom mais jigéen la bu la daloon tey nii laay def jigéen bu mu dal ci réew mi nii laay def su daloon jigéenu Pastef sax ma taxaw man jigéen rek laa wax ñoom nag waa Pastef jigéen ñi euh, dañu perte genn wàll gi yëpp dañu perte <coughs> xamuñu fu ñuy daanu Fatmata Danso euh, waa Guinée Bissau la te xam nga lu ma naqaree dafa am ñu ñu rax. Pastef xam nga Casamance dafa jege Guinée Bissau ñu bari ñu juddoo Guinée Bissau ñëw yaru Casamance di ñu saaga Fatmata Dianso Guinée Bissau la dëkk ñu dimbali ko wutal ko kayitu juddu sénégalais mu nuy saaga ndeyam sax bi ne Bissau la juddu muy jigéen boo xam ni dafa yàgg ci tubaab yi trente cinq ans ñetti sëy ci tubaab xam nga tubaab bu la jàppee day jël sa sóol <coughs> yàq sa kanamu kaw ak sa bu suuf muy saaga réew mi Fatoumata Danso semoon yow Fatoumata Danso da nga may rusloo ndax boo taxawee di saaga xale bu bu ndaw bi am 21 ans ngay jaar fu ñaaw fii mandi nag mandi mandi euh, ñooñu duñu ay yaay duñu ay référence bugguma xale yi réew mi di xool ci ñoom bëgguma xam nga ñan ñoo bëgg ay Fatmata Danso jigéen ñooñu ay ay ay yaa Assu Diop ay euh, mama xaw ma nuñ koy waxee euh, Assu Diallo et ñooñu ñooñu dañuy yàq société kuy yaay waroo bay say doom du la déglu kuy xale waroo leen déglu parce que da ngay joxe sa kii buñ la joxee cent mille woo robel ya nekk euh, kaay fof Guy Marius Sagna gis nga ñi doon tiire Guy Marius Sagna kaay foofu ñoo leen jëlee Casamance ci guddi gi ñu dugg ci frontière bi dugg Sénégal nu ma gën a gaawee bas Sonko wootee combat mortel. Euh, tey jii gis nañ ne foo euh, waxee rek ci Ousmane Sonko euh, lu ñaaw ngay teg ci daram sa relation Ousmane Sonko leer na Sénégal mais tey jii est-ce que yow nga gis Ousmane Sonko mës ngeen toog am nga chance benn yoon sa àdduna nga gis Ousmane Sonko. jëmmam ju ñaaw jooju laa gis ci télé ji yàlla bu ma gis Ousmane Sonko. kon gisagoo ko mosagoo leen. oh, oh non bugguma ko. Ousmane Sonko nag ñaawul. oh non non non non non bu desoon ci góor du ma sëy xam nga lu tax ma jëppi Ousmane Sonko bañu ma ko moom ndax man duma bañ doomu aadama jikkoom moo ma intéressé wul dafa rey quatorze nit quatorze xale yu amoon avenir heure bii tey am na ñu ci waroon a takk jabar seen yaay di xool seen doom am na ñoo xam ne bàyyiwuñu fi njaboot. amuñu jabar seen yaay yi di naqarlu lool tey bésub tey jii seen yaay yaa ngi jooy ba tey ndax ci moment bii lañ leen rey what about ñi lakk seen business yi what about ñi ñu taal seen kër yi ñi seen loxo yi dagg nag ñi ci gaañu nag Ousmane Sonko duma ko mës a bëgg ndax jikko ji combat mortel dootul toogu biir kër génn leen seen salon yi dootul xeex réseaux sociaux yi xale yi départ ci guddi gi mais balaa guddi dañu yeewu fekk mani mani mani mani manigramme yeeg Western Union yi. tey jii Kouromack yi ragalul ëllëg bu Ousmane Sonko jëre réew mi génne ko mu exilé ndax li nga koy yekk nii moom weñ bu ci dal dee. oh non man Ousmane Sonko bu non du jël réew mi. mën na ko jël rek. non du ko jël bu ko jëlee man damay gitangaas man duma kuy daw Sénégal man sénégalais yi xamaguñu ma xamaguñu li ma capable man duma daw sama réew bi ma juddoo activiste yëpp du ñëw. man ñaata temps ngeen may gis may ñëw ku ci ñëw de semaines ngay am daw xam nga léegi lu ñuy xeex activiste yi ay sama kër rafa rafet dama tabax kër maa ci bind li cinq ñooñu. mais dañu yor seen liggéey à part loolu di liggéey di daan seen doole. xam nga man lan laa gëm xam nga man li ma gëm mooy li ma am bugguma taxaw di ko woon sénégalais yi dama bëgg a xeexal sénégalais yi ba ñu xam ni man dama xeex mais ma ñëw di woon sénégalais yi li ma am ak li ma ñàkk. intéressé wu ma ñoom ñëpp maa leen mën muy Amérique di Asie di Europe li ma yor yoruñu ko xam nga ñaata laa def ci <laughs> immigré 40 ans def Amérique 28 ans ñoom ñëpp maay seen yaay behind politique te waneewu ma ko nañ ñëw ñu xeex ku gën a aay ci xeexal Sénégal xam nga ñaata laay ñàkk par anné di def ay conteneur di ko indi fii. conteneur bu ma dugal 3 millions la kenn joxuma ko kenn dimbaliwu ma maa koy defal sama bopp di ko indi di ko jox daara yi <laughs> laaj ma waa Touba ak Tiwaawoon ak kër daara yi ne fii ak kër Umar Fuuti bi ak taalibe yi nekk fii laaj ma leen ne leen Coura Macky ñooñu ma la limal ñooñu ñëpp xamuñu leen lu ñaaw rek lañuy wax ci réseau sociaux bi di ko wax kilifa diine yi di ko wax ñu di ñu baax ñi ci réew mi di leen ko wax yéen ñii di animé ak journaliste yi lu tax jotul ñun ñu def benn bloc xeex leen ñoom ñu arrêté di leen bloc sooy wax lu baax sax waa Kër Sonko xam nu ñuy defa dañuy dem ñoom ñëpp ñooy report la Facebook ma ne leen man damay def poulet boo leen ma reporté Facebook maa nga YouTube boo leen ma reporté YouTube mais maa ngi ci vidéo yi sunu group man dama xew xale yee may jël di ma def TikTok ci TikTok boobu maman Coura dinañ gis na dangay def benn wax bu xoromu xale yi di la TikTok loolu tey ji boo demee sa kër toog di ko seetaan wala nga dugg TikTok ba mu yàgg yem ci xale bu lay eh, TikTok loolu na la lay def. daf ma neex ndax damay wax ni dama gagné li tax ma gagné combat bi mooy wax naa ba sénégalais yi bëgg ko 16 million sénégalais ma wax benn wax ñu bëgg ko kon dafa jara sant yàlla bu doon ay saaga yi ñuy def kenn du ma imité. dama koy seetaan sa guddi damay like di ree ba tëdd ci daf ma neex le tant que sénégalais yi ñi ngi koy bëggee rek man daf ma neex I have a gun dama ko def cinq mois ñibbi naa Amérique ak waa Despro ñibbi naa Amérique def trois mois dellu si waat dama xëy benn bés Viviane Ndour moo ma ko njëkk a yónnee ma naan ko mu ne mu naan ma I have a gun ma naan ko yes I have a gun mais xaw ma li muy wax après mu ne xam naa kuréem yi xamul li may wax xaaral ma yónnee ko vidéo yi mu yónnee ma vidéo yi ma ne ma Ndiiri Ndiallo sama xarit bi mais yow sama baat laay dégg kii lu muy wax nii mais lii lii sama baat kii kan la sama baat rek ni ñi commencé di ma ko yónnee. boobu xamoo TikTok ni muy demee. dama xam TikTok ñu ne ma demal TikTok nga xool sa bopp ma daal di dugg TikTok ñëpp di ma ko yónnee mu neex ma naar yaa ngi koy def tubaab yaa ngi koy def américain Poutine sax def na ko <laughs> Poutine sax def na ko neex na ma sénégalais I love it I love it. Wadika bëgg naa de doom yaay téye sàmb mbokkum yaay tabara saaja ku jëndoon sa waay de lii sa loxo